ñuy ñaan képp koo xamante ni euh, am nga am nga produit boo xamante ni bëgg nga ñu siiwalal la ko mooy mën nga ko mën nga ñoo contacter ci service commercial boobu noonu imaam nag dañuy ñëw suñu deuxième partie émission mooy ci diggante euh, Mouhamadul Amine Sall ak euh, waa jàngu bi ndax gis nañ bërki démboo Ndiaye sorte bi nga xamante ni def na ko ci Walfadjri ak wax ji nga xamante ni wax na ko Sénégal gi yëpp ñaawlu ko imaam lan ngay dikk ci kàddu yooyu nga xamante ni Mouhamadul Amine Sall yëkkati na ko. waaw Sénégal yëpp buñ wax yàlla nag. kon yow <laughs> da ngaa bëgg a wax ni d'accord nga ci euh, Mouhamadul Amine li mu wax. maanaam lamin dama bëgg a wax sénégalais yi imaam Mouhamadul Amine Sall buñ doon génne ci boroom xam-xam yi ci génération laa wax suñ doon génne boroom xam-xam yi kenn mënu ko cee tëb. aalim la faqih la jàng na ba pare tamit xam na dara ci wàllu yàlla ndax baayam a tax. ki ko jur mooy alxaaji eh, eh, Abba Sall rahimahullah ñi mu tollooloon ay at kenn yabu ko ci xam-xam kenn yabu ko ci wilaaya kenn yabu ko ci dara kooku ku mu meññ même boo nekkoon lu bonit danga mujj baax rawatina nag bu leen fàtte liggéey yi mu def ci réew mi di Sénégal benn njuumte bu am njuumte lañ ko mën a tudde xam nga mooy lan mooy njuumtey aada la mais du njuumtey sayri Lamine Sall juumul shar'iyan mais bu dee am na lu mu juum dafa juum ngir laïcité li mu wax laaya alquran la xadiisu rasulullahi la haj Lamine nit ñi bu ñu yaakaar du ñàkk incha allah danañ ko déggaat ci yeneen explication yu gën a leer dama bëgg ñu xam ni lamin juumul shar'iyan dafa juum ci islaahiyan mooy dafa am li may wane li may wax toujours ni réew mi ku wax dëgg nekk victime mais imam est-ce que kon jotul euh, ki nga xamante ni mooy Lamine sàll moom mu yem ci fi ñu ko yemloo maanaam ci wàllum diine parce que gis nañ ni de ma part personnelle gis naa ni man heure bu defee sorti génn ci en dehors de lépp lu mu wax rek tooxi doona lay doon gis nañ tamit ànd sàmm jikko bi nga xamante ni ñoom ñu ngi def seen seen seen seen seen seen combat yooyu noonu gis nañ position bi mu ci jël gis nañ wax ji nga xam doon na ko ci wax ba képp koo xamante ni mën nañ ni àndoo ak moom rek boo jëlee beneen position moom daf la dafay dafay dafay dafay beddi say wax dafay sànni say wax daf lay sànni ay xeet xeer ba ci combat bi nii loolu moo ko loolu moo ko daaneel jamono ji waa ma bëgg a wax rek ni man su doon man la personnellement du ma ko wax waaye li mu xam xam naa ko xam nga lu ma ko teree wax réew mi àtteewuñu diine mais su fekkoon charia ay dox laayam jooju se banal dañ koy jëfandikoo sax xukmu charia la mais moom li mu wax ci jàngu bi yonent bi moom dund na ak ak ak yéeféer fekk na dem na sax ba signé benn convention boo xam ne ñoom dañ dañuy am dañuy dañ leen di bàyyi ak ci jàmm ñoom ñu ñoom ñu jaamu seen seen seen yàlla yonent bi salaa salaam jaamu yàlla jaamu jaamu suñu borom bi nga xamante ni moom mooy l'unique. Haji Lamine ma la bëgg wax sa turandoo boobu li mu wax na ci sénégalais yi def ndànk ñun ñëpp nag ñu ngi àndandu di ko jégglul ci mbooleem euh, diine jooju nga xam ne laal na leen muy diiney christianisme. jéggulu cardénar bi. kon nangu nga ni. jéggulu archevêque yépp nga xam ñoo ne ci diocèse yi. baalu làbbe yépp waaye nag li indi baalu bi indi jéggal bi mooy dañoo bëgg am cohabitation bu rafet rafetal suñu diggante yi mais su fekkoon charia la ñuy doxal ñun te am na ñu wax ni. dañoo bëgg ñu doxal sariya ci réew mi bis bu sariya doxee ci réew mi laayay Lamine Sall yooyu ak xukm boobu mu indi faw nit ñi dégg ko ci télévision yi réew mi nag damay wax toujours ni ku yàlla nattu ngay wax dëgg li gën mooy nga toog sa biir daara di ko fa wax. mais imaam imaam dafa mel ni man ak yow bokkuñ fi ñuy waxee. ndax euh, Mouhamadul Amine moom li mu teg dafa jël di diine christianisme comparé ko wala mën nañ ni teg ko. teg li nga xamante ni mooy franc-maçonnerie mën ne ni kiif kiif lañ. Lamine Lamine bàyyi seytaane. nettali xuloo xuloo la. déet man damaa reporter rek li mu wax. non li mu wax ñun baalu nañ ak kay. ñu mais mais yéen pour man li leen war mooy ngeen nangu nii moom dafa juum. non maanaam njuumte li du njuumu sharia c'est que dama bëgg tamit foofu ñu bàyyi ci xel parce que Lamine. du cuune buy wax beneen bi ci bu nekkoon cuune ba wax lu dul sharia man danaa la ne du sharia mais li mu wax shariatul muhammadiya la waaye nag islaax bi ñu nekk suñu mbokki catholique ñu dëkk ak ñoom loolu laaju ko mais ku mel ni man mii dama ne la laminam lamin moo ma mag te wér na ma ni man lamin li mu gëstu man jàpp naa ni gëstuma ko man loolu laa gëm li mu xam am ci xam-xam man aw ma ko mais dama gëm ni man su doon man la duma ko wax parce que xam naa ni réew mi laajul loolu. mais lan moo tax doo ko wax parce que réew mi laajul loolu kon moom bu génnee ba def waale loolu kon def na erreur def na njaaxum. waa réew mi bu laajul loolu bu fekkee ni aayab alquran ngay firi ba si loolu wax ko réew mi dañ la ci war a diaboliser. mais est ce que aaya alquran bi tamit tëg teg na christianisme teg ki nga xamante ni mooy kii boo tëkkale leen. xam nga lamin tëkkale lamin Lamine Lamine tëkkalewul xam nga li may wax dégg wax dafa neex waaye wax dafa neex waaye fexe ba am dégg moo ko gën a am solo. yàlla mi ma tiim man de ànd naa ci ñépp jóg jéggulu baalu ak ngir lan dëkkin gu rafet xam nga damaa wax fii ay jamono ne ñu ngi xeex mbiru góor jigéen mais li am solo mooy xeex jàmmi senegal du lami na ngi nii wax xuq mu boo xam ni sharia nangu na ko waaye terewul xam nga baatu kufru la jëfandikoo laa yattaqidu almuminina kaafiriin awliya in istahabu alkufra ala al iman maanaam yàlla moo waxal boppam lamin waxul waxi yàlla la wax lépp lu won ginnaaw sayyiduna muhammad al kufru lañ ko tuddee waaye sëñ bi su nit nekkee ci loolu ba daanu peut-être ci waxin boo xam ni jëmee na ci laal diine jàmbur te réew mi dafa am sensibilité yoo xam boo ko laalee rek nit ñi jóg xëñ na loolu sax moo moo moo tax coow li tëdd nii mais dëgg-dëgg may ñaan man li ma gëm da bu dee ci wàllu islaax mën nañ ne daanu na mais su dee ci wàllu sharia lamin daanuwul xukmu sharia la wax loolu duma ko bàyyi beneen bi ci des gis naa ci lu ma naqari gis ngeen réew mii Sénégal man nag dama préféré di wax ñu may saaga man moo ma gënal noppi daal parce que nit bu noppee xalaatam day dee maanaam nit bu noppee ak xalaatam bu mu am damay wax ni ki ñu rey jam ko paaka kooku dafa dee physiquement mais am na koo xam ne dee na moralement mooy ki xam lu mu war a wax te mu wóor ko ni wax ji dana amal njëriñ benn nit te an la an yahdieka allaahu bika rajulun waahid xayrun min ne dunya wa ma fiha yàlla daf ne yonent bi nga wax benn wax mbaa nga wax téeméeri wax benn nit gindeeku ci moo gënal yàlla àdduna ak li ci biiram. mais tamit est-ce que wax joo xamante ni boo ko waxee dina indi comme coow li mu indi est-ce que jaroon na tamit muy wax. jaru ko man day jaralu ma ko. ah man mii du léegi léegi rek maa ngi nii di jéggulu te loo xam ni waxuma lu c'est-à-dire mooy lan wax naa loo xam ni dëgg la nit ñi jàpp nañ ni loolu tabu la mais laminit li mu wax bu charia doon dox loola mais dama ci gis lu ma métti mooy réew moo xam ni heure bu nitu diine di liggéey kenn du ko apprécier dangay sonn di liggéey rek di liggéey rek man dama xool wax bii bërki démb waaye terewul li nga def tafsiru quran mu ne ci internet bi conférence yi nga def ak li nga def yëpp ay nit bëgg a jóg ci benn kàddu boo wax te ñu koy wax ña ko ña ko dagg xam nañ ñu waxoo loolu ñu bëgg la cee daaneel xaaju Lamine nitu diine yi ma gis ñu commencé di ko corriger te lamin mën leen jàngal looloo ma métti maanaam gis naa ci ay chroniqueur religieux ay imam yu toog di wax ndax lan interviewé nañ leen Lamine Sall mën na leen a jàngal fukki at te du xool téere man damay bëgg gis nga xam nga Lamine lu ma bëgg réew mi nañuy honorer nit ñi ci seeni daraja xam nga dañu wax ci mbiru Wally Seck ma wax ak Youssou Ndour ba wax ni devancé na ñëpp yuusu nduur dafa am lu mu liggéey nañ ko honorer cër bi mu am Hadji Sall mii nañ ko honorer dafa am cër bu mu am ci wàllu diine am ko ci xam-xam moom tiitaru Sénégal la tiitaru diine la tiitaru askan wi mbokk la kon dama jàpp ni imaam yi di profito xam nga gars yi bu dara xewee ci la am ñoo xam dañuy profité au lieu ñu défendre la waaye ci la ñuy profité bëgg laa gasal bàmmeel suul lamin Sall na ku ko bëgg suul askanu lëmm ngay suul askan woo xam ni kenn mënu leen ci xam-xam njabootu Abbas kenn mënu leen ci liggéey kenn mënu leen ci jaamu yàlla kon lii xew nañ ko jàppee lapsus loolu la tubaab tuddee lapsus du noonu ngeen ko waxee yéen jàng tubaab njuumte la loo xam ni dañ koy jéggale du dara lu garaaw rawatina nag moom mi ko wax fameem génn nañ baalu àq ñun ñi bokk ak moom daara ji jéggulu nañ jàngu bi yaa xayti jeex na lu ngeen bëgg la de mi ngi noonu imaam nag jeexal na jeexal na wax ji ndax ki nga xamante ni mooy naataangoo naataangoom boobu di Mouhamadul Amin Sall génn na fa yi def benn def benn sortie di di di jéggalu de di tabaarakallaahu ndax erreur bi nga xamante ni defoon na ko ndax jar na jéggalu cohabitation bi nga xamante ni amoon na ci Sénégal ci diggante jàngu bi ak ñi nga xamante ni mooy la religion musulmane tabaarakallahu rafet na ba pare te bëgguñ lenn loo xamante ni rek mi ngi koy yàq. mais dana yebal ñëpp ñu dem yër benn téereb sëriñ Touba. téere bi tudd. ok yaa jumlatan xad sallasu bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw walidu lii lamin Sall wax Serigne Touba woy na ko. mbokk yi nañu bàyyi caaxaan nañu ànd rafetal dëkk bi te xam ni nag pirim alxuraan mu leer mënatu fee am de tànka laïcité mi ngi ci réew mi lay laïcité mi ngi senegaal pirim alxuraanu maslaa moo fi mën a am waaye pirim alxuraan piir bu fi amee rek jëye xew dañuy maslaak laay rek ndax lan yu mel ni ya tax sëriñ Tuubaa moo ko wax dem leen seeti yaa jumlatan xan sallasu bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw waalidu moom daa jël loxoom teg ci dënn moom Serigne Touba ne axrajtumuuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujaahidu dem leen firi ji ko yéen ñi bëgg ngeen jël traduction bi en français est-ce que dooñu ko firil du ma ko firi nañ ma topp ci koor gi danaa ko firi <laughs> mu ngi noonu tabaarakallaahu tey nag euh, loolu lañ leen indi indiloon ci seen euh, kër ki nga kër ki nga xamante ni mooy imaam Malick gis nañ kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci coowam li nga xam coow li nga xamante ne amoon na fi ci digganteem moom ak Adamo waaye gis nañ kàddu yi nga xamante ne eh, eh, eh, Lamine Lamine Lamine bu ma tuumaal naan ma sama coow ak Adamo Adamo coow ma ak moom bëgg nga jaxase séquma ak Adamo lu may coow ak moom mosuma ko seetaan laa la wax nga ne ma yéen a ngi coow. waaw kon ñu defaraat ko ci ah. ci incompréhension bi nga xamante ni amoon na lañ la ñuy wax kon ci diggante moom ak Adamo waaye tamit dikkaat nañ suñ suñu deuxième partie émission ci ki nga xamante ne mooy Mouhamadul Amine Sall di naataangoom boobu jéeye bi nga xamante ni indi woon na ko fi waaye Imaam balaa ñuy dem. Euh, comme que dañoo dañoo jóge ci mardi gras te gis nañ coow li nga xamante ni am na ci gis nañ commentaire yi ndax ñun nag dañuy def le tour du net di di xool li nga xamante ni moo fi xew gis nañ xale yi xale yi seen wayjur yi ñu ngi leen di solal ñu ngi leen di ñu ngi leen di afficher man sax waxuma sëriñ si nga xam ñu ngi leen di toppandoo parce que loolu mën naa ni divertissement la rek mais xale yi nga xamante ni à bas âge la leen di jël di leen afficher ci internet bi di leen wërale àdduna ku nekk naan kii moo mën kii moo mën kii moo mën te xale yi mën naa ni de 5 à 10 ans rek la ñuy la ñuy am est-ce que loolu rafetlu nga ko ah.